ma jaañ laa tudd ci bakk bi laa nekk ñi ma fi jiitu ñaari nit moo fay jiitu ñaari nit dong moo ma fi jiitu kenn jiitu ma fi keneen ku fi ñëw man nga fi fekk waaw làkk bi nag dañ dañoo tekki suñu fas ba dem am na ñoo xam ne sax jotuñu woon a dem lakk bi man dañ maa woo sama kër ne lakk waa safara bi jóg na xam nga ma ñëw mais avant may ñëw génn nañ jur yu bari jur yu bari nag dee nañ fi ñeneen ñi nag jël nañ leen am na ñoo xam ne seen xar fii lañ ko jaare ñàkk ndax dañ koo sàcc xam nga loolu du yoon nit boo fekkee làkk dañ koo war a dañ ko war a dimbale ñooñu pour làkk bi fay mais ñu ngi ci boole loo xamante ne bokku ci to lakk bi ndogal la te ñoo bëgg naan ay nit a ko lakk mais nit lakku ko lii ay ndogal la lu war a am laa daan ndax bu doon lu nit lakk dañuy xaar bu nit ñi ñëpp dem wala nit it ñëpp tëdd ñu taal ko mais kenn taalu ko lii xam na ndogal la rek lu war a am la ñi ci yàqule nag bari na lool. lakk bi fee la tàmbale waaw ngooñ bi foofu la tàmbale waaw lakk bi côté boobu la démarré xam nga bu guddi boo xamante ne. fekk ñëpp tëdd na day day jur yëpp ay dee ak oto yi fii bërëb bu liggéeyukaay la yàgg nañ fi lool nag wax dëgg lii mosu fee am. lii ay mécanicien am na fi ay cuubkat am na fi ay ay feeraay am na fi lépp am na fi daanaka daal lu ñuy yëngu ci ay affaire koppar am na fi waaw loolu yëpp daal ñu ngi ciy yëngu ay jur it am na fi yoo xam ne dañuy yeew ay nag di yafal ba mu suur ay xar di jaay waaw waaw xam nga xar yi bu affaire bi jàppee ñen ñi dañoo dagg euh, boom yi pour ñu génni leen pour sowe leen mais daa am ñu ne ci biti ñoo xam ne ñu ngi rawale seen si juru jàmbur yi di ko yóbbu ah xam nga loolu jàdduwut ah boo ñëwee ci affaire yoo xamante ne ndogal la ñun ñëpp fi daan suñu doole li daan doole la rek ndax gënalul kenn bu ku sañoon doo liggéey feray wala nga liggéey charretier wala nga liggéey leneen boo la neexoon ba amoon lu la neex da ngay liggéey leneen lu lu lu lu gën li ah ñun loolu lañ bëgg mais lii bëgguñu mu indi ñu benn problème la ñu defaraatal ñu toog ni ñu toogee woon liggéey ñun loolu mooy man bi ma bi fi nekkee ak léegi ëpp na 10 ans waaw wax dëgg yàlla yàgg naa fi ndax bi ma fi ñaar ñaari nit laa fi nekk man feeraay laa fi njëkk a yëngu ba mu yàgg sama rag yi ñëw ma bàyyi loolu dugg si sareete saretien mais terewul sama saret laay dugg si dëkk bi di wuti bagage di jaay man yemuma ci benn liggéey liggéey boo ma jox ma dem ndax am naa sama permis mën naa dawal mën naa jaay mën naa gis bagage bu boo ma woon xam naa ko boo ma woon mën naa ko jënd dem jaay ñu bari xam nañ ma fi waaw man lépp laa man boo ma loo bagage boo ma woon mën naa ko boo ma amul xaalis sax mën naa dem ci nit kooku jox ma ma dem jënd loolo dem jaay njaay bi njaay bi maanaam boo ñëwee teg wala nga ñëw jaay ñi fi nekk ñooñu dàq ci dara nga dem liggéey waat noonu lañ ko doon demee waaw yow mën nga dem jënd bagage ñëw am ci dara jaay ko kooku kooku jaay ko keneen ah ay firigo gisoo leen ay frigo ah ay lala ngi fi ay feeraay ngi fi motoru oto lépp lu yàqu daal moom lañ fiy jaay am na loo xam ne du du yàqu sax dañ ko fi dañ koy exposé fii di ko jaay ay ay menuisier am na fi yoo xam ne dañuy liggéey liggéey loo xam ne day rafet lool ñu teg ko jaay wala nit commandé leen ñëpp jaay loolu yëpp a ngi fi nit ñi dañuy ñëw defar seen oto yi fii lépp a ngi fi daal maanaam lu ñu mën a liggéey lépp a fi mais lu bon nag amu fi wax dëgg yàlla lu bon kenn jaayu ko fi. lan moo nekkoon seen relation mairie bi mairie bi bi nag wax dëgg yàlla lu mu fiy duggu bariwut les temps en la doon dugg rek mais wax dëgg lu mu fiy dugg bariwut ñun ñoo jël suñu oto mbalit bu mbalit bi amee ñu ñu ñu oto bi ñu fay oto bi mu ñëw yóbbu mbalit mi noonu daal dund nañ ko fi encore wax dëgg yàlla mais mairie bi moom mosuñu sonal ci leen waaw ñu dimbali ñu rek ndimbal daal la ñuy ñaan. ñu bañ sonal kenn ñu fi nekk ndax ñu fi nekk it wax rek boo leen génnee dañuy sonn ndax ñu am fu ñu nekk day métti torop man loolu dong laay ñaan ndax te yow ñu fi nekk yëpp wax dëgg yàlla ay borom kër lañ ñoo xam ne tey boo leen génnee tey coono day dal di am ndax du ñu amati lu ñu yóbbu kër ga du ñu amati dara wax dëgg yàlla day métti to ñu fi nekk ñu ñu ñu fi dugal wax dëgg son sant wu ñu sonal ñu ci dara dañuy dab dimbal rek to yàlla tax. Ndongo Mbaye laa tudd Ndongo Mbaye lan lan ngay yëngu fii. man damay jaay fii commerçant la. waaw aliment bétail laay jaay ak ay ngooñ waaw moom laay jaay. mën nga ñu wax affaire bi nu mu demee tey. non affaire bi de ni ko ñëpp gisee laa ko gisee quoi. nekk naa ba waaj a ba waaj a wàcc après seen flamme bi après euh, gisuma kenn ku ma jàppale quoi bi ma gisee muy tàkk après li ma def rek mooy fas yi jege woon foofu ak kii ak xar yi ma ci mën a génne ma profil daji mbaar yi génne leen quoi. waaw par la suite nag ci la nit ñi ñëw après gars yi commencé woo sapeur ci la sapeur ñëwee quoi waaw. est-ce teel nañ ñëw. waaw parce que même pas 30 minutes ñëw nañ ko ak yoon bi xat na mais teel nañu ñëw quoi te bi ñëwee tamit maîtriser nañ ko quoi maîtriser ko. pàcc bi na. waaw ah, rëy na waaw. fi yëngu que mën nañu limal à ñi ñi fi doon yan métier ñoo fi doon yëngu. bare bare na am nay menuisier am nay mécanicien am nay ferrailleur am na cuubkat ak soudeur ak lépp ngi fa ah. waaw lépp a ngi fa waaw lépp a ngi fa waaw bari nañu fi xëy quoi. bon kii ferrailleur yére am na yu ñu lakkale surtout borom ngooñ bi moom lakk li mu lakkale bari na ak borom xar yi quoi ba ay éleveurs yi fi nekk tim quoi waaw bari na am na. Mhm. lan gi. ah ñuy xaar ci moom peut-être moom bu xa bu ñu xalaatee rek ñu xool waaw fi mu daal daal mënuñoo sas kenn parce que tim pour askan wi lañ quoi mais xanaa peut ñoom danañ xool baax danañ xool parce que bari na lu ñu yàqule quoi man nag yàqule wu ma. moom Euh, démb la wàcc plus de cinq cent saak ak quatre cent cinquante saak kopp euh, lépp sooy na ñu sante ko yàlla bu baax ndax mënoon naa mënoon naa jël suñu ruu métti na nag waaye dañ koy muñ. Hmm. Euh, lakk bi nag fekk nañu wàcc xamuñu lan moo ko indi man daal woo nañ ma ne ma ngooñ baa ngi tàkk. ma ñëw ci lay soowe jur yi talatuma ngooñ bi ndax xam naa ngooñ bi moom dina jeex ci laa doon soowe xar yi ak fas yi waaw yooyu yàlla dogal na am na nag yu dee waaye yéen yu sauver na. Mhm. ngooñ bi bi. ngooñ euh, ay ay ay cinq millions et quelque ans waaw ndax. boo xoolee ay 1000 saak lay doon 500 saak ngooñ 500 saak kopp waaw. amoon na fi garde amoon na garde amoon na garde déedéet waxu ko de nee daal daa jékki-jékki gis ngooñ bi muy tàkk xamul lan moo ko taal. non fii moom xanaa bëccëg bi moom dañuy dañuy liggéey moom mais guddi bi moom xaw ma mënoo xam mënoo xam ñu fi ñu fi ñu fiy dugg ñëpp mais guddi bëccëg bi la ñuy liggéey di taal ñii di defar ay fourneau ñii di defar ay cin waaw. non laajaguñ ko loolu. comme lii am na ba pare lan ah xanaa mu dimbale ñu rek jàpp na ay ndaw lañ woon liggéey yàlla dogal li bu ñu mënee jàppale tamit ñu jël waaw. mën nga bi kañ la ampleur bi nu mu toll. waaw ampleur bi moom mooy comme ni ngeen ko gisee rek rëy gi mu rëy beneen bis topp mooy vers 19h la commencé te mi ngi tàmbalee woon ci euh, ngooñ yi mooy nii sunu càmmoñ euh, leneen li nga xam ne moom laa ciy wax. muy euh, Macky Sall na fexe ba bu mu teg ci lii tànk bu mu fa jaaree nangu pàkk bi ndax. mais bi. pàkk ñi fi nekk mooy mën naa ne exode rural bi ñoo fi nekk ñi nga xam ne dañoo jóge ci dëkk ya ñëw fii di daan seen doole. ñii ay pàkk feeraay dañuy wër di di di for ay fer di indi fii après di peser di jaay chinois bi wala di jaay euh, indien yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci biir Sodida. Euh, am na borom pàkk bi am na borom bërëb bii nii am na borom xaw ma ndax titre foncier la wala bàyyi la wala lu mu mëntu doon mais en tout cas am na borom man fii laa nekk maa ngi sama kër a ngi nii tout près damaa gis affaire yi ma ñëw indi samay matuwaay samay projecteur ngir jàppale sapeur yi ñëw def pour def seen liggéey mhm. donc dama siy jàpp rek